dañu organiser benn journée boo xam ne dañu euh, décider distribuer ay kit euh, sanitaire pour euh, cent quatre-vingt-cinq maisons yi nekk ci biir Cité Marine ñu ngi si ànd ñaari association la sax yuy ànd ñoo ñaari yëpp benn benn association la muy ànd soxale Cité Marine ak ànd defar suñu gox donc ñaari association yoo xam ne dañu jëm si nekk benn pour rien que defar suñu gox boo xoolee ak feebar bi fi nekk ñu ngi def ay effort pour euh, éviter mu mu law suñu quartier donc euh, ku wax law suñu quartier mun a wax euh, law si dëkk bi tamit moo tax importance boobu fan yi yëpp ñu ngi koy préparer di def ay réunion membre yi ñu nekk fii si si koñ bi ñu nekk à l'étranger ñoom ñëpp di dugal si seen xaalis dugal si seen cotisation ñii indi ay matériel ñëpp ñu def euh, ay kit yoo xam ne dañ koy dugal ci benn kër bu nekk si biir koñ bi donc si loolu moo taxoon ñu woo ñëpp ñu leen di woo euh, pour euh, protéger wu protéger ku nekk protéger sa bopp ba pare protéger quartier bi juge fi protéger ku nekk fi nga jëm nekk ambassadeur lépp li nga xam ne def nañ ko fii tey journée bi importance bi mooy mu mun a génn ku nekk génne ko comme ça euh, li ñu bëgg cité muy Derklé muy aussi dëkk bi feebar bi jóge fi jóge fi complètement ndax ñi ci ñëpp mën a delluwaat si seen activité ndax gis nañ ni euh, économie bi mu ngi siy suuxee activités yi doxatul boo leen gisee romb ngeen léegi xale yi doon football fii et amatuñu mënatuñu toog donc loolu yëpp buñ ko bu fekkee problème boobu réglé nañ ko je crois que ku nekk mën na dellu si sa activité. mais en tant que homme de l'art en tant nga ñu wax lan mooy situation waaw pour l'instant situation épidémiologique bu fekkee Cité Marine euh, nee nañ amaguñ fi cas mais nag euh, feebar bi am na dafa sournois tellement que mënuñu xam ndax euh, effectivement amuñu fi cas. donc euh, loolu moo tax aussi ñu war a def le maximum protéger wu parce que feebar bi am na ñoo xam ne am nañu euh, kàttan boo xam ne mun na dugg si ñoom te duñ ko yëg wala mu dugg si ñoom ni muy ni muy ni mu leen di laalee du metti donc mën na dem ba jàll te duñu xam ne am nañ ko et ñu nekk en contact ak seen famille nekk en contact ak seen xarit ñii di ñëw football si surtout si le les jeunes ñii ñëw di football nekk ak seen contact ak seen moroom donc euh, loolu mën nañ ko wàllante te ku jël feebar bi dam yóbbu ko sa kër mën nga am feebar euh, nit koo xam ne amul doole si biir kër gi koo xam ne mën nga ko wàll et indil ko jafe-jafe donc euh, loolu la parce que loolu mooy problème bi actuellement. mais en tant que président de jege nga trop jeunesse bi ban message ngay lancer nga xamante ne ñoom ñooy principalement ñooy vecteur maladie bi. waaw mooy comme li ma wax sànq rek nee naa leen jeunes yi. actuellement dañu am kàttan am nañu doole feebar bi du lañ sonal donc euh, aussi euh, metti na si jeune mu toog këram du am activité du du liggéey du du du yëngal yaramam donc moo tax ñuy gis euh, police day ñëw des fois di dàq nit yi di dàq mais tout le temps dañuy dellusi donc lenn rek moo mën a am mooy ku nekk am sa benn état d'esprit boo xam ne xam ni feebar bi daf fi nekk te metti na pour ñu xeex ko et il faut que ñu ku nekk ku nekk am benn sacrifice bu muy def sacrifice la nag il faut que ñu def sacrifice boobu jéem a wàññi activité yi wàññi dajaloo bi bu fekkee dajaloo mënul ñàkk ñu ñu sol ay masque yore ay gel comme niñ ko defee kit yi ñu distribuer moo si nekk wala di raxasu pour euh, éviter affaire bi tas si si si si si dëkk bi. journée bi moom macha allah dañ koy rafetlu bu baax di wax ni euh, ide bi mi ngi juddoo ci euh, ànd suqali suñu cité marine ci association ànd suqali cité marine ñu woone ci nag en partenariat. mu nekk partenariat bu ñu rafetlu euh, ma xaar sax retombées yi parce que lire naa satisfaction ci visage population cité marine yi donc mën naa ni partenariat la boo xam ni ça risque de se répéter parce que c'est dans l'intérêt de la cité tout à fait. wax nga ne ça risque dans tous les fànn dans tous les domaines bu dee côté social dinañ jóg taxaw bu dee lépp lu ñu woo à l' avenir dinañ ci jóg parce que gis nañ ni liñ ñu woo tey fulla la ak fayda la ak intérêt wu cité bi donc ñun pare nañu pour que partenariat buñ ñu invité rek ñu jóg def ci lépp lu ñu lu ñu lu ñu mën ànd ci ak ñoom ndax rafetlu nañ ko trop.